man la Colifay 2 poids 110 kilos taille 1 mètre 83. man la Ada Fass. par 1 mètre 86 kuy doomu caaray ku tere caaray daw sa yaram maa lay woo si làmb ji. Ada Fass lay wax ne yow am nga combat bu mat combat boo leeree muy sa jàmm ragaluma loolu.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 ngir mën a seetaan combat bi war a am le 19 juin ci arène national ci diggante franc ak soq te nekk ci diaspora bi gànnaayool sa carte bancaire wala sa carte paypal nga ubbi sa navigateur wala sa google chrome nga def www point seen affiche point com nga bës ci événement franc ak soq boo ko bësee di nga gis événement bi nga daal di bës nag ci connexion par carte bancaire mooy bu jaune boobu nga daal di bës achat ou connexion nga topp tegtal yi ñu lay wan bu fekkee ni mës ngaa am compte ci seen affiche point com dangay dugal sa mail ak sa mot de wa ilaa nga bës ci inscription boobu après nga bind sa mail daal di confirmer waat mail bi bind sa tur ak sa sant léegi nag da ngay. na ku si làmba ji de wax naa la bu xeexee à bu xeexee à daw na jël soq jël na soq jël na rëpp na Franc Lamine dafa diis ah Franc soq ña ngay bëre bëre bu sew ci biir soq ak Franc ña ngay bëre ña ngay bëre soq Franc daan na soq Franc daan na soq Franc daan na soq la ilaha illallah onzième combat onze victoire Franc defati na nam Lamine li ma la wax Franc daan na soq Franc daan na soq onze combat onze victoire mbarukat su jaboon am na ndam laa ilaaha illa llaah soq dafa jubbul xeex lool xeex bi waru xeex déglul fii Lamine presque une heure de temps xale bu soq bu ko indiwoon du xeex warul xeex ku ko xeexloo moo ko daan loo mënu ko looloo ko ñàkkaloo dafa jël ay coup doomu warul xeex combat parce que warul xeex foog nga leeral ko da nga dafa wax ni dafa wax sànq ni soq day teg pied gauche loxo bi day sori doomu daangul kii nu mu tëddati franc droite bi lay teg te xeex droite da koy jege. Lamine xoolal xoolal. dafa niir combat bi Lamine. waaw warul xeex. waaw. ba pare bu weesoo loolu yëpp. waaw soq dafa diis si combat a oh. ma doon wax. lii yëpp lu yoo xam ne ba léegi récupéré ko ci combat bi. ba pare xoolal Lamine lu mu la may li ma la wax Lamine. waaw Lamine combat la combat bi. waaw ku ci may sa morom dara yaa daan sa bopp. wax nga dëgg. Lamine du yoon. lu xew. laa <laughs> ilaaha illallaah. soxu. soxu soxu war na bëre ak Franc wet. 11 du bëre ak moom Franc def na jaloore. ah a a di. ah Franc na jaloore Franc kan moo ko mën a bañ a di ci làmb. gis nga Lamine bu weesoo wet googu ñuy wax yëpp. waaw mooy li ma la wax rek. waaw soxu waxoon naa ko te dama koy waxaat. ku ko xeexloo à distance yaa ko daaneel. soxu si combat bi jël na si ay kuu mm-hmm. boo xoolee bi muy song si sax dafa daw rek jëli. waaw parce que dafa oo si Franc loo xam ne saa à dire Lamine comme li ma wax rek. Franc tànk bi muy teg loxo boobu lay dóoree. yow sa loxo ba sa ginnaaw ngay dóoree. Ah. Lamine wax naa la ko sànq nee naa la boo tolloo fii. ma tollu fee ñu jëm fële. waaw te gënuma gaaw gënuma laa gaaw maa njëkk a àgg Lamine. loolu mooy combat bi. man doomu dàngul soq. waaw li ko waroon ci combat bi daf ko faussé. muy lan. adversaire bu mel ni Franc. tel micro bi tel ni Franc. waaw da ngay fexe nga imposer ko loo xam ne nii ci làmb. Hmm. luy mën a leer la. Hmm. Franc ñaar yi kenn du ko bëri moom. kenn du bëri moom wet ko. kenn du kenn du bëri ndax avantage ci wetam la ne wet la mëne te soq Franc ku ko bëgg a ci làmb da nga koy duma boo ko duma doo ko daan. mais yombul duma parce que mi ngi jàng xeex. et puis xeex koy euh, nga dama lay wax lenn. waaw dafa am xeetu mbër yoo xam ne. waaw cest ay fin bagarreur ñoo leen mën a sonal. Uh-huh. gis nga Franc fin bagarreur rek moo ko mën a sonal. Uh-huh. gis nga Lamine li ma la wax rek. combat bi li ko yàq ci côté soq yëpp. waaw man man première euh, fi ma contesté soq. Hmm. poids bi mu andi dafa bari. non Lamine gis nga boo xoolee cest à dañ dul mën a wax lépp rek. waaw waaw mais boo xoolee ñaari état de forme yi rek. soq dafa diis. dafa diis si. Lamine mënoo bëri cest à da si feeñ. mooy saa bu ñu rappelé ki gën a oyof mooy gën a mooy mooy njëkk jug. Ah. boo xoolee soq bi mu rappelé amatul benn réaction parce que dafa dafa diis soq dafa jóge voyage ñëw gën a xoolal combat bi seetaan léegi Fadam tout waaw yaa doomu dama bëgg ngeen décortiquer ko combat bi mhm. de A à Z mhm. xam nga fan la soq njëkk a defee erreur uh-huh. warta nangu tànku Franc di ëmb tànku soq warul warta bàyyi Franc di ëmb tànkam waaw gis nga gis nga gis nga alaaji faram alaaji faram xam nga tey sox nan la waroon bëree may am ndam ah. nan la waroon bëree am ndam gis nga loxo sox bi si kanam warta léewtoo lu bari parce que loxo boobu la Franc di dóor day tee loxo Franc boobu loxo Franc ba boo xoolee seen loxo moo ngi laalante gis nga soxu dafa jël coup. buy tóor gis nga dafa jël coup non dama ne. warul léetoo des na beneen des na beneen. non dafa jël coup. des na beneen na beneen arrière boo arrière ralentir. des waaw non am na bu gën a feeñ gis nga xolal xolal del xool xoolal del xool bopp sox bi del xool bopp soxu gis nga coup bi mu dóor del xool ba foofu dañ ko dóor benn des na beneen des na beneen xoolal xoolal xoolal xoolal gis nga dafa daw gis nga alaaji yow fanam <laughs> xoolal xoolal coup bi xoolal laa ilaaha illallah alaaji Fadam li ma la wax rek gis nga loxo sox bi si kanam warta léewtoo parce que Franc loxo boobu da koy téye da koy téye gis nga loxo boobu xolol xolol kuu bi xolol boppu soxu looloo yàq làmbam xolol xolol xolol fii du ko du song waroon na song paquetage la waroon doon. non day songu Fadam dañ la dóor Fadam daa jël ay coups. et puis xoolal fii fii. fii non dafa diis poids bi gisoo mënul jug xolal c'est-à-dire. Franc moo ngi gis lépp si soxu si si te soxu gisul dara si Franc gis nga li may wax rek gars yi des fois dañ lay mën loo xam ne mënoo ko si wax uh-huh. parce que nee nañ Franc mbëru simple la ñu bëgg a xeexloo soxu loolu nekkul ci moom man xamoon naa ne soxu su xeexee Franc du ci am lu ko neex su xeexee ak Franc du ci am lu neex loolu la doomu tàng wax mu ne nee na dañ ko def loolu mënul muy xeex Lamine la ma la waxoon rek laa lay waxaat soq ma gis nii Franc mi astafurlaa mii ma gis nii ku ko bëgg a jëlee ci làmb ku ko bëgg a jëlee ci làmb ku ci làmb da duma Franc ko bëgg a jëlee ci làmb da koy duma. sama problème du loolu ndax yomb naa duma laa moo ko war a duma. loolu ma jaaxal Lamine. selon yow ban saaru mbër moo ko war a duma. kaay wax la benn secret ko gis naa ko mu ànd ak coach su. Gabon Gabon waaw. ci benn terrain synthétique ñoom ñaar waaw. mu koy def loo yoo xam nii kii bu mënee xeex ci làmb gars yi dañuy am problème. doomu ndàngu reetaan na de. kan moo koy ah ah sa kaay ngay ma fiya kàcc kàcc waa kër Toutian Cekko. ban saaru mbër moo mën a duma Franc ban saaru mbër. moo war a duma moo yaa reetaan na de reetaan na sama question bi de. dama doomu dangul looy wax sa digganteeg Franc loolay coow li Lamine. dama ne ko ban saaru mbër moo duma mën duma Franc mu reetaan. mais doomu dangul daa wane ne moom xam na ne luy touché Franc te xeexkat la mais diggante doomu dangul ak Franc lu ci amateur di wax. loolu dinañ ci ñëw léegi. loolu mais Lamine. waaw diggante doomu dangul ak Franc combat bu jaar yoon a noonu. waaw combat xaalis. combat xaalis combat njarndéem. waaw combat ñaari mbër yi am doole combat ñaari mbër yu ñeme. dëgg waaw. dëgg la. laa ilaha illallah lamb kenn du ko bëri te lamb ci ñëwagul. lamb kenn du ko bëri te ñëwagul. non gis nga comme li wax rek. Lamine mooy li rek. ba pare sànq dañoo posé doomu dàngul question. Uh-huh. dinañ ci ñëw. ma ne ko ñaari mbër yi di bëree. ku daan yàgg moom ay combat la barke démb Jordan nga daan. waaw non. Fara doomu daan bi combat xaalis la xam nga lu tax ma ne si wax. man damay éviter di def réaction à chaud. am nañ temps bi làmbang ci ñu kanam buñ ci waree waxtaan rek dinañ ci waxtaan mais comme que tey dañ fi toog comme ay consultant waaw bàyyil ñu nekk ci domaine boobu rek waaw. dégg nga ko bàyyi téléphone bi. Lamine li ma lay wax dégg ko baax ma wax la ko nga dégg ko. waaw doomu daangul waxut ak ay xale. doomu dàngu looy wax sa diggante ak Franc Ndiago. Faram dama ne. man tey consultant laa. ndax ñeme nga xeex ak Franc. Faram. doomu dàngul ndax ñeme nga xeex ak Franc. alaaji Faram combat bi jeexagul xoolal waxal ci combat bi alaaji Faram waxal bi. Lamine. alaaji Faram ma dama bëgg ñu ñu ñu wane ñu wax erreur yi ñu jàpp ni Sokh daf ko def ci biir combat bi. Lamine. dama bëgg ñu dem ci page YouTube yi. waaw ñu xool lan la ñu waxoon ci combat yi. sama page YouTube dama ne leen soq ñaar yi moo koy may ndam mu touché Franc te bu bëree wet day daanu. mu mu lan mu lan Franc. mu touché ko. non man ne gis nga xam nga Fadam dama la wax leen ci ci làmb. wax wax naa ko avant combat bi. waaw waaw bi ci kanam. fekk dalul Franc. mais mënu ko dóor nekkul ci mais ma mosoo ko mu dóor ko mënu ko. cest à la loxo soq bi mosu ko dóor si làmb. boo xoolee day mépp dóor bi si ginnaaw. may ko mu ñëw Franc ngi ñëw. Franc ngi noonu di. man la Colifay 2. poids 110 kilos taille 1 mètre man la Ada Fass. 1 mètre 86 105 kilos. képp kuy doomu caare ku tere caare daw sa yaram maa lay woo si làmb ji. ma lay wax nag yow am nga combat bu mat combat boo leeree muy sa jàmm ragalu ma loolu foo taxaw ma fekk la. di woo Ndakaar yëpp le 26 incha allahu rabi arène nationale di ne bu seede nga doo dërëm boo dëggalee sa bopp dinaa la duma dinaa la da gars yi PPV lay doon ah. entretien seen affiche point com. képp kuy bëggee Ada Fass rek maa la nga jënd code bi toog seetaan lamb ji may daanee qualifié 2 jël bu rëy bu amul benn werante wan ko xo du dërëm. kuy fans qualifié 2 dawal jënd code bi gaaw seen affiche point com. jàppale am si àll ba danga war a wàññi ba coono yi dem ñu bi incha allah.